salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñu suivre ci seen site internet luttetv.com Gaston Production ak Post Afrique ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ziare démb nag lañ taxawal combat Boy Niang numéro 2 ak ki nga xamante ne moom mooy lag moom mooy Balla Gaye numéro 2. combat bi nag Père Gaston moo ko taxawal waaye nag dafa am loo xamante ne xëy nañ gis ko muy cachet bu Balla Gaye numéro 2 comme daf ko doon nëbbu gars yi nag fexe nañ ba xam cachet bi nu mu toll muy 150 millions. daf ko ëpp wala matu ko loolu moo waral tey mu woote def ay leeral ci noonu dañ ko nuy bàyyi ko nuy mbokk internet yëpp ñu laaj tamit drapeau Balla Gaye numéro 2 la ko tuddee ak combat bi nga xamante ni nee mu ngi ci Reug Reug Bombardier père maa ngi lay nuyu di <laughs> bi maa ngi lay maa ngi lay fay xam naa ne da nga dellu da nga yow. waaw ah, neex na de. foo nga dellu loro loro su neexoon doo fi toog sa rakk ji ñëw toog. loro neex na waaw ñëw ñoom Malick ak ñëpp. bëgg na dëkk bi de léegi. Hmm, yaa ko gën a bëgg. waaw mais moom moo ma gën a miin Ndakaaru léegi. waaw ah, d' accord kooku seen affaire ñu bi leen ñu bi leen rek Ndakaaru fees na. mais est ce fi bàyyi. man man yàgg naa man laa dëkk yàgg naa fi. Ah, mais nga doon wax bi may ñëw bi ngay ñëw loo andi. Ah, bi waaw mais dafa yàgg man bi may ñëw dafa yàgg. boobu dakaar feesagul mais léegi dafa fees nag dellu leen. mais duñ la fi bàyyi. non non man bu jotewul dara man a yéen. amul benn problème naka mu ci loo nekk nag koor gi. waaw alhamdulilah ñu maa ngi sant yàlla. ñeme nga koor. Eh, koor ñëpp ko ñeme. man koor laa mais comme ni ma ko waxee ndéem nga taxawal combat Balla Gaye numéro 2 ak booy Niang cachet bi nag gëj ngaa wax say cachet mais xëy nañ gis ci journal yi ñu ne 150 millions nga fay Balla Gaye numéro 2 ba loolu moo waral nga ay leeral yan leeral nga mën a andi. mais li may jëkk a wax rek mooy ce journal là n'est pas sérieux Sané mi ko bind je le croyais plus sérieux que ça mais li mu bind amul ca dëgg. nit suy bind day bind loo xam ni yaru na maanaa et puis mu am ay source mais dégg nga de source proche de Gaston Production kooku si amul sax crédibilité man xaaju maa fay Balla Gaye numéro 2 sama xel sax xalaatu ko 150 millions di ko fay mbër jegewu ma ko sax 100 million yi sax àggu fa moo ëppale nag euh, Boy Niang kooku moom euh, nëbbu ma ko mais di tëb di bind 150 millions. c'est même, euh, c'est même honteux pour un journaliste. Il ne faut pas prêcher le faux pour avoir le vrai. da ngay dem ci source yi nga laaj moom toujours mu wooma xam na sama téléphone toujours mu woo ma pour quelle raison muy hasardé wu di bind loo xam ni c'est faux c'est archi faux ay mensonge la dara mu ci. mais est mais source bi moo gën a moo jëkk a fos. pourquoi source pourquoi source ca man mu xam ma ma nekk fi man maa tëgg làmb ji ay source proche de diw loolu mais loolu mooy waxu waxu kasaw kasaw c'est trop facile de dire que journaliste la j'ai j'ai une source ak source de source sûre lan moo sûre dëkk ak nit sax dana tax nga soo xëyee wax ci moom ni de source sûre mu mel ni koo kookoo la ko wax c'est c'est c'est loolu c'est pas vrai ah non. mais loolu lan moo la ci metti fay Balla Gaye. non non non mais c'est pas vrai. dadul dëgg su doon dëgg su ma fayoon Balla Gaye deux cent millions trois cent millions dama koy wax man lan man maa ko fay mais di wax lu dul dëgg moo dul yoon mu di wax lu dul dëgg moo dul yoon man dama taxaw nii benn mbër cent cinquante millions doot dama dootul fay loolu dama dul fay sax lu ko jege. te man xam naa sama bopp kenn saxaluma suukar pour ma tëgg làmb man la neex may tëgg làmb man la neex may fay lu ma neex mën naa ko fay su ma ko amee. mais loo xam ne fayu ma ko bu ma ko kenn waxloo c'est pas vrai. loolu daal mooy leeral yi kon fay ñuy Balla Gaye 150 millions kese moo xam naa ne moom ku ko wax. wax na ko sax dana miir loolu sax yeneen mbër dafa ni dégg nga loolu am na ci làmb ji ba tey d'ailleurs genre yi ñoo yàq làmb parce que ñooy jox appétit yeneen mbër. mais loolu Sané professionnel. non professionnel je le connais très bien Sané c'est un grand journaliste. il était du moins c'est un grand journaliste mais un journal un professionnel ne se comporte pas comme ça c'est pas possible di wax loo xam ne amul tey yu mel nii mooy jox sax appétit ay mbër ba tey di lor sax mbëri mbëri du ñu am combat far c'est pas bien. loolu am na solo léegi combat bi taxaw na démb. ban mois nga ko bëgg a def décembre wala janvier. Euh, xamaguma ko de façon daal deux mille vingt deux la ci début deux mille vingt deux. ok voilà mais xamaguma date bi. kon mënu nekk décembre daal. non du nekkul décembre même janvier sox du ko nekk. voilà. loolu leer na léegi drapeau kan nga ko bëgg a def. waaw kooku moom dama décidé woon comme euh, keroog euh, c'était le drapeau du président Macky Sall le 4 avril. Bombardier Balla Gaye 2 drapeau El Hadj mbay sama xarit le combat Boy Niang ak euh, Balla Gaye kooku moom dama ko fas yéene def drapeau Thione Seck bi nga xam ne dafay yàgg bëggal réew mi yàgg def lu ne ci réew mi nekkit sunu xarit bëggoon làmb bëggoon folklore bëggoon euh, vraiment réewam bëgg cosaan def lu rëy ci réew mi it mu génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana taaw teg euh, loxo ci njabootam moom laa bëgg moom laa fas yéene moom laa bëgg a tëggee rendre hommage ci bis boobu tebal ko drapeau Thione Seck. macha allah loolu loolu la yaakaar naa ne événement la te exclusivité bi moom yaakaar naa Lutte TV moo ko am ah. Gaston production point com ko am. ak Post Afrique ak Lutte TV. lu tax ngay jiital yooyu. yow soo fi nekkee di wut euh, di positionnement dañ lay dàq de. waaw dàq dàq nag dàq dàq da laa jege nag. xam nga dan laa héberger waaw dàq da yomb na ma comme dañ laa héberger da yem ci place ku nu héberger. mais lan moo tax drapeau nga xalaat Thione Seck ba tuddee ko. mais Thione Seck dinañu ko tuddee leneen sax ci réew mi. parce que daf ko mérité daf ko fi liggéey. waaw loolu rek la. yàgg fonk jeunesse bi toppatoo jeunesse bi yàgg amee di joxe ay message yu baax ci jeunesse bi yu doon éduquer nit ñi et puis muy sama xarit ñu yàgg sama xarit la. mérité lu ne nag mérité nañu tuddee ko lu ne ci réew mi. Mm-hmm. maanaam dund xamante ne daal loolu nga fàttaliku. ba dund mi yëpp ko mérité voilà. ok loolu am na solo beneen combat bu ñu dégg Reug Reug Bombardier ndax da koy waaw Reug Reug mën naa taxaw jot naa Reug Reug biig euh, manag woo na managem woo na benn parrain bi nekk fii Baydi. Baydi kooku xamoo ko kooku kenn xamoo ko ah kii moom bay di lu tudd kooku ba woo nan ma biig wax nanu ñu ngi koy xalaat mais nag li ma waxoon booy ña rek laa ko wax demal nga régler ji sa situation ak euh, sa promoteur bi la tëgg yow guy gi ba pare mm-hmm. ba ngeen xam fu ngeen féete parce que man su tant que réglé wu leen yooyu ba ngeen xam fi ngeen féete duma la mën a jox avance mais suñu réglé loolu ba mu xam fu mu féete nag ba mu xam fu mu féete ak kañ lay bëri su boobaa mën naa toog ak moom seet ndax kan laa koy jox ñu waxaale su dee bombardier la ñu waxaale seet su ma ko mënee tëgg tëgg su ma ko mënul a tëgg mu seeti keneen. mais ni nga woowee ni nga woowee Reug rek ba am yéen a tëggal ko est-ce que woo nga bombardier tamit. non bombardier moom laa jëkk a woo bombardier moom dama ko woo avance sax may jox Balla avance. woo naa ko wax ak moom léegi li may ñaan yàlla kay euh, promesse bi ministre bi defoon bi muy teg seen euh, euh, CNG bi ñoom Bira Sène waxoon na ni. mbër yi nañ seetaat seen situation situation de retraite bi ñu ñoo xam ni ku am quarante cinq ans à partir de ça de ça da ngay dem ci médecin bi mu seet la soo aptee pour bëri nga continuer bëri soo aptul nag doo bëri donc euh, su fekkee ni euh, promesse boobu ministre bi defoon ba léegi mi ca ministre bi moom lu mu wax c'est du béton ministre bi Matar Ba moom lu mu wax mën naa ni c'est du béton même su ko nit doon jéem a dindi ca mu génn ci laa mi làmmiñam ragal naa ni du mën a deñ kon am nga yaakaar daal combat am naa ci am naa yaakaar trop ci Bombardier war naa man a continuer car kii am euh, carrière xaw ma nag combat bi dina taxawam du taxaw. ça dépendra ci ñoom ñaar. man bañuma dara. ci lépp na normal rek de façon du ma santage chantage du ma nangu it ku ma bëgg a def looloo xam ni euh, bët xam na lu bopp attan. ci ku ndóbin rey sa maam foo gisul ñuul daw man làmb ji xam naa li ma ci daj xam naa li ci wa li ci normal xam naa lu ci normalul. moo tax su ma déggee ñuy wax nii Gaston fay na benn prix bi sax da ngay waaru fay naa par exemple Boy ñaa li ma ko fay kenn mosu ko ko fay mosu ko bëri ci làmb fay naa ko lu bëree bëree bëree bëri Balla Gaye fay naa ko lu baax a baax a baax mais nag yooyu ñuy wax xaaju faag. mais mas na ko bëri Balla Gaye li nga ko fay. ah bien sûr li ma ko fay mas na koo bëri bëri na bëri na sax lu ko ba tey li ma ko fay nii. Balla bëri na lu ko ba tey mais man maa mënatul loolu li ma man lay fay. kon daal mbëri rek ñu ngi jàpp ci seen seen i combat ñu ngi wàcc wàññi kas. mbëri yi am xel. ci raisonnable ci xam yoon. ñoom xam nañu. beneen affaire yo dafa mel ne ngaa ñuy nag nit ñi parce que kenn xaarul woon combat bii nii maanaam combat la nga xamante ne amateur yi doon nañ ko wax mais bi ñu amee combat ñoom ñaari mbëri xel yi dañoo génnoon ci combat ba ñu ngi doon xaar Balla Gaye Gris Bordeaux wala Balla Gaye Eumeu Sène ndax juboo dafa amul sa diggante ak ñoom. yàllaa ko yàlla dogal nan bàkk nan jàpp ni rek daal lii la yàlla dogal lii yàlla dogal nag moo am leneen du nekkul fu ay komanteer pare nga wala pare ko pare ji la na di. taxawal bi. ah ça ça yàlla mooy dogal ku yàlla jàppale rek a fi nekk man mënuma dara yàllaay jàppale. Lac de Guiers Lac de Guiers eh, eh, boobu waxaguma ci boobu moom wax vraiment nekkul samay corde maa ngi ñaan yàlla nag ma am promoteur bu ko tëgg mais boobu nekkul samay corde. jéen ndax da koy joxe d'avance jéen kay. Eh, jéen mën naa nekk. Oh, maa ngi koy wutal mais jarul ma koy wax léegi mais su amee daal kii ma xam ni ku ko bëgg mën naa wax ak yow mais bu duma du ma accepté benn mbër di ma wax jox ma diw ak jox ma keneen. man kay démb am na ko ma Aziz Ndiaye ak ku mu manti dee. jën kay rek la euh, euh, la non combat la effectivement mais nekkagul samay corde. wala wala jën ki waxi rajo waxi kii du ma mënoo ma wax loolu ma waxul wala lu mu nekkul sama xel man sa bàyyi laa maa la maa mag maa la ëpp xel dangay toog da nga réglé. Mhm. voilà waaw euh, ci yow. mbaa nga may delloo loolu. loolu moom da nga fa dellu. nga tooñ da fa dellu nga ñàkk a tooñ da nga fa dellu loolu moom fii xajoo fi Ndakaaru. mais Ndakaaru ñëpp dañoo ñëw de père. mais da nga daa ñëw. Senghor daa ñëw. maam la da ngaa yéex a ñëw Dakar fees léegi dellu leen yéen ñu mujj a ñëw. bu ñuy dellu nag père nag dañ lébu yi lañ fi lébu yi lañ fiy bàyyi. waaw <laughs> lébu bi ngeen bëgg a génne léegi. def si. yi lañ fi bàyyi. waaw baax na d'accord. kañ la ñu commencé promo combat Bombardier la Bombardier kii Balla. le 26 juin la de. non Bombardier Balla gaa yaa ngi wax le 26 juin ñu wax lu ne. Ah. date bi sax mu xam nañ daal. entre juin ak juillet la parce que xam nga CNG date yu bari dem na xam nga gars yi nag danañ nekk di jëkkante dat yoo xam ni da ngay waaru da ngay gis sax koo xam ni amagul combat di jëkkante dat yooyu yëpp nag euh, CNG it war na cee seet ñu jóg ci ca nit ñi it raisonnable man xëccoowuma date defuma dara mais maa ngi seet. te mu fu ma jekku muy samedi muy dimanche yëpp laa yemale. Sa Thiès Moussa Ndoye ban drapeau kan la. Sa Thiès Moussa Ndoye sax ñooy jëkk a bëri Sa Thiès Moussa Ndoye xam naa ni ak. Euh, Forza Pakala dama leen di boole benn journée ragal naa ni ñoom ñooy bëri le mois de juin. drapeau kan la Sa Thiès Moussa Ndoye. xamaguma ko. tuddee ma ko. yàlla tere. ok da ngay ñib su fekkoon su ma la ko tuddee nga ñibbi looro dama tuddee la ko. <laughs> drapeau Youssou Ndour kañ la. affaire. kan ji. drapeau du Youssou Ndour kan la. léegi rek ah Youssou attends Youssou dana am drapeau sama xarit la Youssou Ndour sama xarit la sama doomu ndey la sama lépp la kooku euh, lu ëpp drapo Youssou Ndour sama naam. Mm-hmm. wala drapeau Père Mbaye drapeau per Mbaye Fall ma mën naa mbay mais Mbaye moom nag mbay xam nga soo ko tuddee drapeau damay ragal ah làmb ji est-ce que ñëw doon bari làmb ji du fees de. Ah, mais borom télé yee ñëw. ah. ñoom El Hadj Ndiaye. xam naa ne te pourtant suñu ko tuddee woon drapeau làmb ji dana fees del ndax ñi ko bëgg ak ñi ko contre yëpp dañuy ñëw pour xool si nu muy demee. de kumpa kumpa gi kumpa yi foog ñu. nu muy wàccee. Hmm. naa ci maa gën a kontaan ci yow jërëjëf.